loolu bu matee weer rek si lay yem am na benn site bu ñëw fii ñëw na fii wax naa leen ne ngeen baal ma si seen tele bi may waxee loolu ñëw nañ fii moo wax leen ne kilifa gu mag dina fi jóge képp koo xam ne mu ngi seetaan loolu mën na dem seeti ko ma ne leen kilifa gu mag a mag a mag dina fi jóge te yàggatul dara lii gis naa ko jege na torop amaan jox joxe digle woon ay sarax ñun ñu doyadal ko yàlla mooy ma ñoo moo ñu may tawfeex ci loolu ndax am na koo xam ne mu ngi wax ak man te du ma fen heure bu ma mosee wax loo xamante ni gis na safaan wa moom dina ñëwaat ne ma li nga li ma la waxoon ne mooy am am na loo xam ne moo ci moo ci moo dox ci diggante ba mosuma wax luy dëñ te bu demee bay dëñ dina ma wax ne dëñ mujj na dëñ te balaa boobu fa yàlla ki nga xamante waxoon naa ne lii mooy am dinaa fa jaaraat ne la maa waxoon ne lii la lii la. boobu fa yàlla ki nga xamante waxoon naa ne lii mooy am dinaa fa jaaraat ne la maa waxoon ne lii la lii la. yàlla moom may tawfeex ci loolu ma di ko sant yàlla bu baax macha allah. xam nga ñoom dañuy wax dañuy faral di wax ak yow yooyu. Hmm. ñuy wax yow yooyu dinañ la wax la kay la hmm. waaw mooy li ma lay wax léegi ba may wax léegi ne euh, am na kilifa gu mag a dina fi jóge hmm. digle woon naa sarax waxoon naa tamit ne lakk yi bari nañ te dinañ gën a bari nit ñi amaan na yéen yéen a ma gën a xam yéen a ngi teg seen bët ci lakk yi ci dëkk bi. waxoon naa accident yi yéen a ngi teg bët si accident yi loolu yàlla moo may tawfeex ci loolu ki may wax nee naa mosul maa wax luy dañ seet yàlla dimbale na ma ci macha allah te képp koo xamante ni am na jafe-jafe boobu ma boo ñëwee ma xool say mbir xam fi may jaar soobu yàlla na nga nopp loo xam ne kii su ma ci mënulee dara booy ba nga toog incha allah. mm waaw duma tudd tur naan euh, waxuñ moon ne diw mooy gaañ ala kulli yàlla waaye kili waaye wax nañ ma ne ki fi jóg kilifa la rek waaye nag yàlla moo moom dund moomam dee kullu nafsin zaa'iqatil mawti yàlla moo moom dund moomam dee di ñaan yàlla kilifa gi nga xam ne moo fi jógee di sëriñ Béthio Thioune yàlla xaree ko àjjana yàlla taaf ñu si ay leeram dëkkale kook sëriñam bu màgg ba sëriñ Saaliw Mbàkke radiyallaahu anhu yeggale kook ci maqaama sëriñ e, Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yeggal mu yégal ko ko si yonent yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam ndax wax dëgg yàlla ku xam Cheikh Béthio man de am naa su may nit yoo xamante ni Cheikh Béthio leen defar alaa kulli kon baax na ñaanal ko yàlla yàlla yërëm ko fu mu jëm gënal ko bu foofu jógee te dee nekk di naflaayam bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa